Aïda Ndiongue fekki na makki Sall li tax mu fekki Macky Sall nag nañ ko dem seeti laaj yu jóge ci ndey pen ndey faatu dem ci Adja ayda Ndiongue ayda Ndiongue nag takkandeeram di Alassane mbaay topp na ko ca interview ba ndax dana dégg jàmm war a dégg jàmm ñu seeti ayda Ndiongue Alassane mbaay ak ndey faatu waaw ah, kay waaye a mel ay da jong. macha allah hmm, mën a ah, <laughs> nii rek nga mën a mel. jërëjëf Mbaye kay wàll gi jërëjëf Mbaye jërëjëf waay jërëjëf Mbaye wala fonka man de ma def nii. <laughs> Ah, nga baal ma nag dama laa tàggul waaye fu ma dem mu topp ma. waaw waaw waaw baax baax waaw Alassane Alassane ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax maman Aïda Dione ñu ngi lay nuyu di la dalal mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ñu plate si suñu plateforme digitale yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax tey ñu ñëw ñu am loo xam ne mën nañ ne bett nañu bettuñu ñu am gis fi benn euh, xaw ma sax lu ma ko mën a waxee ndax man daa damaa daal di tiit daal di jommi ah, ne Sénégal ne mën na fay am ma maman Aïda Diong ñu ngi leen nuyu nuyool ñu daal di commencé débat bi ndax daal na auzu billahi mina sheytaani rajim mhm. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp rawatina waa waalo bi ma fekk baax mhm. di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo nekk sama mouvement bi yëpp taxaw di leen wax ne wax dëgg yàlla mhm. interview bi sax soo gisoon ma nangul la ko Mm-hmm. dama ne dañu nekk ci mouvement ci euh, moment boo xam ne mm-hmm. euh, ku waxul feeñ te ku wax feeñ tamit mm-hmm. kon noppi tamit wax la waaye tamit wax tamit wax la la moo taxit tey eh, ma nangu la invitation bi ànd ak sama géwél bu baax gi di Alassane Mbaye moo ma topp sax forcé mais dama waxoon ne mun naa waxal sama bopp amul dara du xeex xeexu ñëpp dara tontoog laaj la rek yow laay déglu waaw tontoog laaj la parce que da ngaa ñëw ci émission bi nga xam ne lu lën na euh, xelu askan bi rek dañ koy daal di indiwaat fii ci biir émission bi daal di koy leeral waaw mama sa sortie bi bett nañu de. mais am na ñoo xam ne nee na bettu leen. bett <laughs> man da ci bett teranga laa dëkk waaye bettu ma kenn ci di ay jëf. Mm. Mm. ndax man yaakaar naa ne. Mm-hmm. génn gi ma génn wax dama génn wax rek parce que wax dafa jot. loolu rek tax ma wax mm-hmm. waaye amul leneen leneen lu war a bett nit ñi ci sama jëf. waaw mais ku mel ni euh, maître euh, président sax laay wax président Abdoulaye Wade fi mu jaar ak yow ndikk Coro Sarr Manes Coro Sarr fi mu jaar ak yow ñu gis ni tey daal nga xëy rek du mooyu ko daal di ko woon ginnaaw. loolu lan moo la ko jaral déedéet laaj bi mu du mooyu aram du mooyu. Ah, da nga bàyyi naa ko bañ mu gaañ déedéet dama ne dama uh-huh. ne. nga góor gi. Mm-hmm. nekk nañu nekk bu rafet nag macha allah. Mm-hmm. te nit da nga koy seedal dëgg rek te yàlla tax. Mm-hmm. waaye comme que moom dafa nekkoon ci nguur ba nguur ba jeex. te président Macky Sall tamit nekkoon sama frère. même bu nekkee ne nekkul nii damay wax rek. sama <laughs> uh-huh. frère la. Uh-huh, dëgg sax ay. président ak dara. ndax day wax ak man kon ni ngay wax man nii. te loolu aw ma dara lu ma ci nëbb nit ñi xam nañ ko. donc man bu fekkee ne justice moo topp Macky Sall topp ma justice ma topp su ma demee ba xam ne ni lii réellement war naa taxaw génn wax. jàppale sama frère damay génn taxaw wax jàppale sama frère ndax amuñu benn candidat boo xam ne actuellement ni ci PDS la jóge jiite li nga xam ne mooy réew mi candidat bi nga xam ne mooy jiite réew mi APR la nekk te makki la tudd sant Sall mu noonu sama frère de parti bokk sama frère de santé libéral kon nag man su ma ñëwee fekki Macky loolu gisuma ci dara. maanaam óolu waay jong waay. ah macha allah Alsaan. loo waxul rek. may ko may ko Assane Assane da ngaa forcé da nga da nga forcé topp ko yow tamit da ngay bañ a yàq direct bi ah, Sénégal ñëpp a ngi seetaan waaw mais bul yàq mais bul yàq direct bi ah. boo forcé toppee da ngay daal di régler sa mos sa ñàmbur rek waaw maman maman kon fi mu toll nii waa PDS da nga leen teg nànk daal bañ ñu gaañu. waxuma ay teg nànk teguma nànk teguma nànk. waaw mais waaw dafa am leeral bu ma bëgg mu génn parce que ku lu mën lu ñu mën a wax rek dañ laa xamee ci PDS mais nañ xam ni PS nga njëkkee jóge ci PS dem PDS jóge ci PDS fi mu toll dem ci AP kon transhumance sa yëf la léegi ñu daal dem ci. beneen déedéet du ma bàyyi mu jàll. damaa nekk ak PS nekk ak PS nekk ak PS nekk ak PS ba PS sama bopp xam ne may mesurer. yàlla def Ablaye Wade daal di ñëw ma xam ne liggéeykat la ma ànd ak liggéey liggéey gu laalu ma fa puus ma fa faas ma defu fa dara lu def li nga xam ne mooy sama jëf kon nag boo ma yaakaaree ne man ku ñëw ma yëg sa ko war a ànd ak yow yaa ngi jum bul ko waxee noonu taxaw te liggéey ñàkk jëriñu moom a tax a taxaw ànd ak le président Ablaye Wade liggéey ak moom ba liggéey jeexee damaa jeexal wax ja waaw mama ah, macha <laughs> yaa ngi perturbé waaw déedéet ku ne am nga sa géewul juddu te waalo laa laa kenn du ma wax loo xam ne déedéet moom bu xamee démbam xam tey xam sama démb xam tey du bañ ko mooy noyé waxal topp la mais moom nañu may ñu def émission bi waa léegi mën nañu xam euh, président Abdoulaye Wade kañ nga gëj a dénkante ak moom Abdoulaye Wade damay dénkante moom du ëmpante moom parce que duñu xoo xuloowuñu mhm. xeexuñu mhm. sama frère la sama xarit la sama lépp la lu ma mhm. neex laa laa koy laa koy wax ndax président la boo xam ne fu ma jaar ak moom ci cadre politique ak xelam lu may xam ne dama koy xelal man ma nekk ak moom loolu laa continuer di jëfandikoo moom ba tey awma ma gàcce benn mhm. yoon dugg siège parti démocratique sénégalais mhm. ndax man samay jëf nekkul loo xam ne jëfu ay jëfu suuf la dama ne fàng ba mu leer nañ kon avant ngay dem avant ngay transhumé nii nii nii woo nga ko loolu je le garde pour moi ah, ah <laughs> léegi léegi léegi maman man li ma comprendre mooy lan nga ne président Macky Sall sa frère la te moom mu yónni dugal la kaso pendant un an et demi nga xëy day fekk ji ko est-ce que maman kon loolu mën nañ ci am. dama ne même bu fekkee ne moom moo ma dugal kaso. ah la dugal ma nga doon dugal xaalis sama kër. maanaam dafa doon dug ma rek déedéet waa dama lay wax. Ah, dama lay wax parce que teraanga ku la ko defal du tuuti. bu fekkee ne moom moo topp ci kaso bi sax ba topp ba mu sës génnewuñ ma. blanchisseur moom moo weex taal waaw dama lay wax nag un an et demi yàlla ko tuddoon. bi ko yàlla tuddee tëdd naa ko mu jeex ndax man samay maam duñu ay daw duñu ay tàppet yaa neex àndal <laughs> billaay wallaay samay maam duñu daw duñu tàppet ndax waalo waalo laa xaw ma daw ginnaaw xaw ma oh, dellu ginnaaw ah kay loolu la kon mu leer nag waaw waaw mais mais mais mais non non mamaa xa déedéet yow laaj bi sax waye ko waroon tontu <laughs> waaye maa ko tontu mais waye ko waroon tontu may ko tuuti ñëwal mi ñu saak mais maman xam nga ni ki la yóbbu kaso na bëggu la maman nga ne est yow fi ñu toon nii yow parti bi boo ci duggee est-ce que maman tamit nit ñi duñ la siis wala ñu fiir la vraiment man gisuma sa place foofu. Euh, man nag dama la xamal ñaar. Mhm. damaa ñëw jege Macky Sall pour xelal ko. damaa ñëw jege Macky Sall pour mhm. jéem koo apporter sama soutien mhm. ci li nga xam ne moom mooy développement bi nga xam ne mhm. yaakaar naa ne su ma duggee ci gouvernement Macky Sall war ma nekk ak Macky Sall pour développement waalo et la femme sénégalaise rawatina ñi nga xam ne ñoo gisuloon seen bopp ci gouvernement Macky Sall ëlbatu gis seen bopp ndax Macky suñu frère la dañ koy jàppale sama càmmin la wax ji daal ci gàttal man daal dem naa ci ma ne lu baax da ngaa bëgg a moom lañ coincé depuis boobu ba tey. yow laaj ko ndax dama bëgg yëg ay milliards Alassane. kii mooy milliard. kii way ko mais Alassane posé la question. moom xam sama géwélu juddu la wayal waxal war nga wayal. kii nii way ko. moo moo moo moo moo moo yóbbu kii màkk nu mu tuddati sax. a jafe waaye yow jëkkee sa bopp moo la yóbbu màkk. ah ma xoolal ma defal moo tax ma doon géwél VIP. ma ne moo tax ma doon géwél VIP màkkee ma dépense musuma màkkee dépense jongu jëla. waaw kay tontu na la <laughs> waaw. waaw <laughs> ah, waaw. bu doyul ma doole de. déedéet doy na may ko ma eggal. doy na de yaa ngi yaa ngi jël suñu temps. Ah. waaw mais mais maman. kon yow fi ñu toll nii mën nañ xam say milliards rek delloo nañ la ko a delloo guñ la ko nga wax ñu ko en direct nii ci Télé média Médias miroir du Sénégal. li ma war a xam ak li ma war a wax. Mhm. état daf maa leeral ak justice ba ma leer nañ toppatuñ ma dara kon kay loolu delluwaa na sama gafa su ma neexoon na ah, topp sama wërsëg waaw maman xaama dag la fa parce que maman fan yëpp maa ngi déglu ci am naa rajo yu nekk ko delloo ay milliards nañ ko delloo est-ce que kon nekk loolu ah. man xaalis saxul may topp man ay milliards su ma ko amul léegi la laa koy ah, joxe sax ndax dafa nekk ci crise sociale boo xam ne añul reeru ndékkiwul dama am ay càmmin yu baax nekk ci réew mi yor sama alal yor sama teraanga sàccu ma ko bougé wu ma ko laaju ma ko labatu ma ko triande ma ko damaa liggéey ñàkk dindi ko en tant que femme entrepreneur dama la bëgg xamal ñaar ñoo mun a am way Alassane waxal kii may kat waxal kii may kat ak fu ma juddoo déglu ma wax kii mooy gaynde ak waalo ba baa xam boo xamul gaynde ak waalo moo nekk nii xoolal ma ne Aïda Diongue yaa juddoo si baax yaroo si baax màggee si baax. Ah. kon yow da war a mën a baax. Assane kenn invité wu la bu ñuy yàlla ah. man fi doon ni sonn naa parce que yow maa ngi la bëgg a teg posé la ay question sa géwal nanguwuma may ma wax te sénégalais dañoo bëgg a xam léegi fi may daanelee mooy lan. démba li euh, li ngay gis ni ngërëm rek nga def président Macky Sall que ba mu la tëjee un an et demi moo daam joxee sa kër dépense kon yow lan la la war a mën a defar lu mat ay milliards ba tax nga fekk ci ko. ah la ma ah, wax ci presse dafa leer déedéet man la ma wax dafa leer ci presse bi. Hmm. laa wax dama ne. ba ma nekkee ca kaso Macky Sall ci boppam moo doon jël xaalisam di ma joxal dépense am sama dépense. Hmm. yoro ma dépense sama kër. Hmm. teewul mu téye ma ci kaso bi. fajal ma samay soxla sama kër. teew mu teew mu teew mu téye ma ci kaso bi muy añ reer ndekki gàmmu màggal xew-xew ak lépp déedéet ma ne la xam nga jaar jaar jaar la dama ne man jaar jaar la rek dama ko nangu accepté ko parce que waalo mbooj jigéenoo waalo mbooj luñ du xaar ci ñoom bañ ko waree jëf dañ koo jëf ba moo sëkk te man ci jàmbaaru jigéen laa bokk waaye yi tamit géwél yi ay fa ma jëm ak <laughs> lii mosuma koo gis. dañ koo gis nag. ànd ak say géwal daal may ñu dara ñu wax. waaw parce que dañoo xam dañoo xam ne ñoom dañoo xam ne man dama fier. man namu ma dara. man wax dëgg yàlla du ay déedéet milliard milliard. Ah, yow da ngaa xamul da xamul gis nga boo xamoon. boo paree émission da nga ñëw ma jox la ci jamaa yi nga takk ñaar laa gëj a dégg ci la dama nekkoon Alassane Alassane kenn gisatu ko woon boromu batterie cey bu lay maas da naan kër naan kër naan kër naan kër ma ne kuraa du moromu batterie cey bu lay maas da naan kër naan kër yow Alassane yow ba ngay mujjee grand théâtre sax wayoo ko Alassane may ñu def suñu émission déedéet déedéet bu ma ma jaxase ak Alassane ndax lépp lu mu xam si aada ak cosaan samay mbokk xam nañ ko déedéet <laughs> Alassane noppil demal maman doo ñu wax loo doon dépense ba mu jaral la nga fekk président la ma doon dépense yu gën gaa dee su ma yeewoo danaa reeb xar mhm. lekk lekkale ña nga xam ne yàkkal ña nga xam ne seen seen loxo jotu seen ginnaaw mhm. ba ma duggee ca kaso ba ba génn laa am yërmande ci ñi nga xam ne ñooy aji dent yi ajjuma bu nekk li ma war a def maa ko def te yàlla mhm. di def li nga xam ne mooy war a président Macky Sall di ko def te ba pare bàyyi mag justice justice ba leeral ba nañ ba mu weex tàll kon dama ne du xaalis moo tax man ma dugg ci loolu waaye dama ne boo ma bëggee xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mhm. Alassane ak ñi nga dégg ñuy yëkkati léegi bu ñëpp mhm. génnoon ca waalo nga xam ne ne man jëlu ma an man a man man damay xëy di joxe rek man na mu ma dara ci ay tax mu dot mag waaw kii rek nga am tamit naan kër ma ne wolaadu moromu batterie cay bu lay laaj ko laaj ko bi dong nga am ah, may dafa doon sama dama doon. mais ba nga nekkee prison ñëwoon na sees la. ñëw na ba ca kaso ba jaxaseeg moom dama ne xale bi a jaxaseeg moom dama ne sequñu sax ay dama ne du ma tontu ci laaj boobu li ma la mën a xamal daal ci gàttal mooy uh-huh. fekk naa Macky ma ko woonaa journaliste wax leen ko ndax laa traité ma ko ci suuf ca laa ko waxee mu leer ma fekk ko ci suuf moom leer naa ñu kon amul may daw waaw kon daal fekk maman daal fekkee na génération yëpp jóg nga PS dem PDS dem APR jeex na loolu dara fayu ko. fan bu gudd ak wér gu yaram laay ñaan yàlla bu keneen ku ñëwaatee sax mu mën a ànd ak moom ndax xam naa ne liggéey ak développé Sénégal bu a tax a jóg. ba dawoo ci dara nii ak loo ci laa noo jeex na. ah waaw ah, man bi rek hmm. la jamaa ñëwal. non maman baax na damay bañ ñu koy nangu. nangu. nangu. li ma jàpp boo ko xamee wax ma ko. <laughs>